alors S, je ne sais pas c'est bon activez voilà nous sommes ici, juste en face euh, nga avons donc nous voyons qu'il y a des jeunes qui sont là en train de manifester on ne sait pas pourquoi parce que nous sommes la police nous sommes venus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Papi, je ne sais pas. Pourquoi la police fait demi-tour Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Voilà, donc il faudra avancer. Donc Papi, quand avance, voilà, gars, autobi. Donc donc bar, euh, donc Madame bi jógee nga xam rond point camp de garde jëm fi nga xam ne mooy kër gu mag fii ne dafa am xale yi nga xam ne dañu fay génn nag ñëw pour li nga xam ne mooy kaas yi nga xam ne mooy neen dañu sonn ci couvre-feu bi ba tax nag ñu génn di télé bi télé bi télé bi ñu tamit police ñëw nañ ba taxaw fa am nañu taxaw noonu gis leen ak xeer yi mais dañoo xam dañu dañu la police elle est là replié wu pour l'instant ken xamul luñuy wadjal c'est la police j'ai vu le commissaire Diallo il est là avec l'inspecteur Diop ñu ngi taxaw di préparer ay sen sen sen stratégie ba légui nak boy nak ñu ngi bloquer nga xam moy moom bi joggé nga xam moy mooy camp de garde jëm kër gu mak waaw gis nañu tal nañ fa ay safara ñu ngi doon sànni xey police yi di leen di leen wax ay wax ju ñaaw léegi nag ñu xaltu nag ba xam waneen fan lay mujjee ak bëtam ndax la police elle est là juste devant moi Bara donc gis ne les policiers sont là juste en face euh, ñu ngi ne taxaw ci côté route national bi jëm Touba euh, wetu ko wetu kër gu mag yàlla commissaire aussi qui est là juste à gauche euh, Diallo donc loolu mooy li nga xam ne mooy xew fii ci kër gu mag pour le moment donc ñu jàpp ne kon yi nga xam ne moom mooy xale yi dëkk tëgg Ndiobène ñoom ñeneen dañu sonn ci couvre-feu bi dañu sonn ci couvre-feu bi ba tax ñu génn taal dëkk bi li nga xam ne mooy bloqué li nga xam ne mooy yoon bi jógee camp de garde jëm kër gu mag loolu la ñuy xaar nag ba xam wàññante fan lay mujjee bëtam fan lay mujjee bëtam bëggoon nañu dem jëli mais nag xeer yi moo tax nag ñu daw parce que mu ñoo egg ndax ku ci ne baara ngeeg oto maa ngi sama oto mais wóorut parce que ay xeer moom fu mu nekk yoroo casque yi pneu yaa ngay tàkk baara booy yaa ngay gën a tàll pneu fële ne nga xam ne moom mooy euh, ci dodaan bi bi nekk wetu kër soxna wetu euh, Loto Sare donc loolu mooy li nga xam ne moo fi jot a xew fii ci kër gu mag jàpp ne il minuit minuit à l'instant même fii ci kër gu mag voilà xaar tuuti ba xam lan la wanante mujjee bëtam ba xam ndax booy dañuy ñëw jàmmaloo policiers yi ba xam ndax policiers yi dañuy chargé pour tas li nga xam ne moom mooy euh, manifestation booy yi léegi-léegi mu la doon bu ci kalamee tuuti rek ñu xaar ak le commissaire comment il va s'en charger kon lii mooy li nga xam ne moo fi am fii ci kër gu mag ba ci kanam tuuti